mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëw ak ci mbir yi agent croix rouge bi nga xamante ni doon nañ ko jiiñ ni fa daal di violé rek ab ndaw su jigéen soo xamante ni amoon na jàngoro coronavirus teñ internet woon ko moom waa ji wuyoo nag ci turu beña di ab agent hygiéniste di liggéeye foofe ca croix rouge ginnaaw rek bi nga xamante ni jiñ nañ ko ni fa daal di violé ab femme boo xamante ni dafa amoon coronavirus teñ internet woon ko foofe ca hôtel bo novotel indi na ay ci mbir mi ñu sukkandikoo ko nag ci journal bi di l'observateur moom waa ji nag weddi na tuuma yi nga xamante ni xale bu jigéen bi ay atam toll ci ñaar fukki at teg na ko ci kaw deram moom beñaa nag lim xam le ni moo di dafa dugg rek ci chambre bi nga xamante ni entré woon nañ fa xale bu jigéen bi ngir dalal xelam ci jàngoro coronavirus bi nga xamante ni dal na ko beñaa nag leneen loo xamante ni xamal na ko enquêteurs yi na bi muy dugg ci neku xale bu jigéen bi li mu sol moo di uniforme Croix-Rouge bi nga xamante ab blouse bu weex la ay gants de protection ab visière ak mbaxane ak combinaison de protection bi nga xamante ni moom la ñuy sol ngir aar seen bopp ci jàngoro coronavirus gi waaye nag li ñuul ci soow mi moo di moom beña bi nga xamante ni rek way takk der yi laaj nañ ko mu indi uniforme bi nga xamante ni wax na ni moom la soloon da doon nakk-nakal ak di dital mbir mi nag daal di tey xelu enquêteurs yi fii la ñuy yam ak yéen dinañ leen toppal dossier bi ba fu muy yam